chers internautes Dak Médina tey dañu ñëwaat fi nga xam ne moom mooy euh, pont gol Tapée muy penc mi ñu ñëw nag dalal bergerie dalal jàmm bu Faramaren sama waa ji maa ngi lay nuyu. maa lay fay joriñ nga waxaat tur rek. maa ngi tudd Maguette Sarr. waaw Maguette daaw ñëwoon nañ fi gis nga liggéey bu am solo bi ñu fi defoon euh, macha allah ren tamit ñu ñëwaat fi ren marché bi naka la demee. ah wax dëgg yàlla métti rek. ren moom moo ci raw ren moom moo ci raw quoi affaire yi métti na trop trop trop sax waaw parce que ñu ngi jëndee xar moom dafa jéggi doyoo ak dund bi métti na trop waaw wax dëgg yàlla métti na trop. mais dund bi pour lu tax foo dem rek ñiy yar xar éleveurs yi dañuy jooy dund bi dund bi qu'est-ce qu'il moo ci nekk. ah dund bi état moo ñu si war a jàppale. parce que loo doon jëndee jamono ñu toll nii dix mille. yaa ngi ko jëndee vingt mille. loo doon jëndee vingt mille yaa ko jëndee trente mille. léegi calculel saako yoo war a jëndee vingt mille quatre jours cinq jours mu jeex. na war ko téye at kooku ñaata la si xaalis. waaw ñaata la si xaalis. xam nga des fois nit ñi dañ naan xar yi dafa cher xar dafa cher te xamuñu man mii damay élever xam maa lu ci xont nit ki li nga ma li ngay li ngay def ci xont bi munoo ko jaay xar mi amul rek moo lu ciy dugal ak li nga xam ne mooy denc sa xaalis tamit xaalis bu dajaloo. ah loolu moo si ne amoo tey xar daanaka li ñu koy jëndee ak li ñu ciy def mm. munoo ko jaay. soo ko toppee doo doo ko jaay quoi. parce que ni lay investir lépp def ko si yow daal xaalis bi daje soo calculé sax daanaka dañ siy bàyyi ay millions muy dem. yow bi nga bi nga indee xar yàgg na wala yàggul ñaata jours nga fi defagum. daanaka defagum naa vingt cinq jours. Mm-hmm. waaw def naa vingt cinq jours chaque jour maa ngi fere dix mille francs. clients yi ñu ngi ñëw. clients yi ah, dañuy waxaale di dem na di sonn prix yi rek. clients yi dañuy ñëw ñu defal leen ñu ñëw fii ñu defal leen ay xar yu baax mu ku fi ñëw moom incha allah sa xol dina sedd ak sama ndaanaali moom boobu léegi ñu ngi koy xaaraan. Ah. Mhm. ba léegi mënugul yegg si muy Wally. xam nga kii di Wally dafa jugee Dôme de Paris gis nga ko dem na fa door fa soirée bu rëy. Mhm. soirée bu réussir. woo ko rek mu ñëw jënd ci xar yi jëndal waa Faramare ñëpp. Ah, dafa leer su ñëwee war na ñëw su ñëwul war na ñëw. parce que moom si moom la ñuy bégee quoi moo ñuy yokkaloo fit tax moo tax ñu ñeme. Wally mi ngi lay dégg ah, waaw fii sa daral la soo ñëwee war na ñëw soo ñëwul war na ñëw waaw. léegi bu ñu jugee ci wàll yi xar yi yan yan façon xar nga am. ay tubaab beer laadum am na fi. waaw ak ay xaru ordinaire yi ñu defar ba mu baax. waaw soo fi ñëwee incha allah pour xar boo bëgg ay asawat yooyu yëpp fi. njëg fu mu toll. njëg daal deux cent mille jëm kaw la démarré quoi waaw. ak lan. ba quatre cent mille. ba quatre cent. waaw tuuti ñaata la. cent cinquante. cent cinquante waaw. gis nañ tamit manifestation yi fi amoon yàggul ñu ngi naan la cinq tamit dañuy marchat mais loolu ban sécurité ngeen di pare pour aar seen xar yi. ah soo dee xool dëkk bi jamono toll looloo ko taxawloo dëkk bi dara fonctionné wul ku jël sa alal soo bëggee investir sax da ragal parce que di si làqatu si gannaaw moo bëri sàcc yi ñu ngi ci di yàqalaate nit ñi suñuy liggéey ñu ngi xool lu ñuy sàcc tey tey nañu mën a dimbali quoi. parce que gars yi ñuy waaj événement bi dañu war a mën a dimbali gars yi nekk si leneen moo gën ay problème guddi problème bëccëg gars yi di yàqal nit ñi dañ ci ci trop trop trop trop moo tax ren nit ñi yéex a alal daanaka un mois doon nañu fekk teg di xaar waaye ren vingt cinq jour daanaka am na ñoo xam sax génnaguñ ba tey ndax dañoo ragal parce que marché bi ñu wax ne la vingt cinq dañ may nit ñi jàmm ni ñu mën a toog liggéey waaw parce que Sénégal fi ñu toll métti bu mu métti yaakaar naa leneen xaju si quoi leneen xaju si jàmm rek moom moo tax ñaan quoi lu waaye ñaan ñaan te ñaanoo jàmm ñaanoo dara parce que tey li fi amoon bii passé dëkk bi lépp a taxaw kenn demul génn ndax lan li fi laxaw si gannaaw ñi manifester am na ñiy sàcc si waaw kon nag dañuy ñaan jàmm ci réew mi ñu ñëpp bokk ndey bokk bàyyi parce que Sénégal jàmm fi am jàmm la ñu xam loo fi bëgg bool lu bokk ak lool dañuy sonal population bi waaw. looy gërëm ak looy tëjee. waaw di sant rek sant ñëpp su si yéen sakk at deen fi jaar xool ma nemmeeku ma kon yéen aw ma seen fay di leen ñaanal daal fi leen li leen bëgg yéen a ko xam yàlla leen yàlla defal jàmm fi leen toll yàlla na yéen ko xam yàlla na suñu doom def na nekk tele yi gën a mag si Sénégal yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def waaw waaw incha allah waaw kon mbokk yi lii lañ leen indil doxantul na leen ba Fass kanaalu Fass bi ñëw penc mi fii Gueule Tapée gis nañ fi éleveurs yi tamit ñi ngi ñaxtu ñi ngi jooy monsieur le maire Abdou Aziz Paye yaa ngi may dégg yow yaa coiffé Gueule Tapée Fass Colobane lii di éleveurs yi ñi ngi jooy ndox lii di éleveurs yi euh, ñi ngi jooy sécurité nee nañ daaw heure bi oto ndox yi daan na ñëw di leen may ndox policiers yi daan nañ fi doxantu mais ren gisuñu loolu comme monsieur le yaa ngi ñu déglu nag ñëwal nga jàppale sa askan ñëw jàppale sa gox. Wally Ballago tamit dégg nañ sa ndaanaan bi lu mu wax ñëwal nga jënde fii xar muy dalal jàmm Faramareen jërë ngeen jëf.